voilà combat bi jeex na diggante BMW ak euh, ki nga xamante ne mooy Petit Baboy gis ngeen ni combat euh, neexoon na mais également seetlu nañ ci doole si noo gisee combat euh, doole feeñ na ci. prépar préparation bu baa aussi day feeñ ci xale yi. Petit Baboy numéro 2 am na xadar. Sabador bi muy soloon bi turandoo doon sol nee la moom la ko turandoo bi jox mais qualité bi mu war a bëree tey ak qualité bi mu waroon bëree tey. ak qualité bi mu war a war a ci turandoom des na. waaw mais BMW nee naa la ñoom ñaar ñëpp ci dynamique de victoire lañ toog Baboy numéro 2 bi mu ñëwee écrit sàkku xam-xam xam sa cosaan safar laa dafa tegale une dynamique de victoire tegale dynamique bu baax. BMW nekk ba dajoon moom it am dynamique de victoire bu baax ñu xam ne combat bu neex la ñu boole leen waaye tey li ma seetlu ci combat bi bu neexee te yàlla rek tax may wax ca man làmb rek moo ma ñor. BMW moo ëpp doole moo ko mën moo ko mën moo ko man parce que arbitre dafa ciblé mu cadré ko may ko wax boo xoolee jéem na ko orienté ci benn angle jéem ko faa tey dikk ko foofu mhm. ba booy di def ay jeu de di déplacé wu une deux moo yàkkamtiwu ko toog di ko xaar toog ci ay tànkam parce que baabooy ci tànk yi la bëggoon a jëm si dëgg la mu xaar ko ba mu ñëw bi mu dawee sol ko téye mu daw ca xabal ko mu tëdd doole doole doxul entraînement bu baax entraînement bu baax la xale day ñeme entraînement mhm. ñeme teg ca moom coono. waaw tey teel a tëdd. comme man rek. coach bese na maa leer de. <laughs> alors mbokk téléspectateurs yi ni ko coach waxee noonu la amee gis ngeen ni combat bi avant bi nga xamante ne arbitre di sifflé sax gis ngeen ni bi ñu demee xooli seen ñaari état physique bi waxoon naa leen ko waxoon naa leen ñaari état yi du ñu benn. également euh, ki nga xamante ne moom mooy Petit Baboy ñu koy félicité ñu koy encouragé di ko wax ne delluwaat rek gën a liggéey doon ki nga xamante ne moom mooy Baboy numéro un wala Baboy. yombul parce que gis naa ko ci tuus bi bi mu defee tuus gis naa ni mu xaw a sonn tuuti maa ngi koy laajte notamment turandóoram ne ko gis naa ni dafa xaw a sax sonn mu ne ma noo premier souffle bee génn ñu ñëw ci biir làmb ji bi ñu simmeekoo ma xool adversaire ma xam ne ñaari état yi duñu benn ñu koy félicité moom ki nga xamante ne moom mooy BMW gis nañu également li mu mobilisé ñu koy gën a wax ni na gën a jàppaat noonu la Cheikh Omar la woon ànd ak El le meilleur